donc mbirum góor jigéen Sonko bako mbirum en bako bako ngir yalla parce que da nga ay bañ an interne len hôpital nga ay buñu sodomi Oxfam la 100 millions nga recevoir ñu euh, sax Majid nasa meilleur de de de du Havre nek de nga couple gondigen. Afil affirmer sen sen sen ando ak yow nga dem Suisse ay góor jigéen recevoir la yow lan nga meuna wax ci góor jigéen nga ñew gaay yi def seen loi nga ne sous réserve ba kalim xulum genn di wax après nga doona ñewat di wax di jëm neubut def discours pour non mënoo li ñi wax manam del wax rek di nga wax kat dana wax ba lamb ginaaw ne du sa du sa bos dox kat tamit dina dox bu dëgg yi neefere donc loolu laa ci bëggoon toftal ci lu ndaw j'avais dit 30 minutes mais je suis à 39 donc sant nañ ñëpp.